yéen mbokk yuy jéglu Safina FM fii ci 98 point 2 seen mbokk seen xarit imaam abu Aboubacar Mbodj moo ñëw fii di waxtaan ak yéen ci émission bi nga xam ne moom la ñu tuddee makaarimul axlaax di émission boo xam ne dañ ci waxtaane lépp loo xam ne dafa jëm ci jikko ju rafet wala doxaliin wu rafet ci diggante nit ki ñi nga xam ne ñoom lay dundal ci kaw suuf gannaaw bu ñu santee borom bi tabaaraka ko taala moom mi nga xam ne moom moo ñu sant ci ñuy def lu rafet jëme ko ci suñ woy jege ñaale moom moomu nag bi muy lim sax ñi ñu war a dimbale daf ca jiital avant muy indi jirim yéeg miskin yi maanaam woy jege yi la jiital ba pare moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu wal miskina wabna sabil na nga jox ki nga xam ne moom nga am mal lien de parenté muy sa mbokk na ko jox àqam ba pare teg ci nag miskin yi ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci yoon maanaam tumuranke te amuñu lu leen yóbbu ñoo ngi seede ne boor boobu tabaaraka wa amul benn buur bu ñu war a jaamu budul moom moom mi nga xam ne moo wàccee nit ñi ku nekk mu wutal la maanaam ja ku nekk fa nga war a tegu mu teg la fa ci rafetal ak ci teral moo tax mu tàmbalee ci sa way jege ne ñoom day ñoo gën a yeyoo ci yërmande joo am di ko def rekk na ko tàmbalee li wolof di wax bay ci say wewu tànk te itam cofeel ak mbëggeel ñoom ñoo ci gën a yayoo waaye lépp loo xam ne danga ko am di ko def ci sa alal itam ñoom ñoo ca jiitu ji seede ne seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la moom moom nga xam ne day jottali gi nga xam ne doon na ko jottali nit ñi day mësu cee laaj leen lu dul ne xanaa boog mu ne xanaa boog ak cofeel goo xam ne dangeen ko am ci seen way jege ñaale ñoo ngi julli ci moom di sëlmal ci moom ak i ñoñam ak i saabaam ñoom ñi nga xam ne ñoom day xamoon nañ lool li dox ci diggante nit ak mbokkam waaye daanañ matal àq ya waaye lépp lu leen ci waroon itam daanañ ko ci def yal na yàlla gërëm leen yéen mbokki jullit yi xam ngeen ne émission bi passé ña ngi ci doon wax ñaari way jur ñaari way jur nak bu passé xam ngeen ne ñi ci top ñom ñoy manam ñi nga xamne ñoy say way jégué ñaale motax borom bi tabaaraka wa taala bi mu ñu waxé ne yas'alunaka maada yunfiquuna qul ma anfaqtum min xayrin fa lilwalidayni wal aqrabina wal yataama wal masakini wabni sabil wa ma tafaalu min xayrin fa inna allaha di wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko danañ la laaj day li nga xam ne am nañ ko ci alal naka lañ koy dépensé mu wax leen lépp lu ngeen xam ne dangeen ko am di ko def ci lu mbaax ci seen alal day na ngeen ko tàmbalee ci seen ñaari wayjur bu ngeen jógee ci seen ñaari wayjur seen way jege ñaale maanaam ñi nga xam ne da ngeen a bokk ak ñoom ci wàllu deret ak yatim yi maanaam jirim yi ak miskin yi ak ñi nga xam ne daal aajowoo nañ ko yàlla nag wax ne lépp loo xam ne def ngeen ko ci lu baax na leen wóor ne borom bi tabaaraka wa taala moom xam na ko te dana leen ko fay kon bu fekkente ne waxtaane nañ bii paase maanaam aqi way jur ak teral way jur kon liñ ci war a teg rek moom mooy àq maanaam mbokk ak teral mbokk jokk mbokk xam ngeen ne yéen mbokki jullit yi déglu émission bi dañuy xam ne ab jullit day bu tedd dana xam ne maanaam mbokkam mu nekk aw dogit la ci moom bu fekkente ne def nga lu rafet ci moom na la wóor ne yow sa bopp nga ko defal mbaax googu sa bopp nga ko defal waaye lépp loo xam ne def nga ko ko ci lu bon walla nga teg ko ko ci lu bon na la wóor ne sa bopp nga ko def ndax nit ku ne sa mbokk dogit la ci yow ndax yéena bokk deret ji nga xam ne moom mooy daw ci yéen kon boo ko gàkkalee sa bag bopp nga gàkkal waaye boo ko yëkkatee itam jàppal ne sa bopp nga jékk yëkkati moo tax borom bi tabaaraka wa taala day moom dafa yëkkati mbiru maanaam mbokkoo ci téereem bu màgg bi jaarale ko ci lamiñu yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne borom bi tabaaraka wa taala ma ngi wax ne waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dil qurba wal yataama wal masaakin borom bi tabaaraka wa taala di wax ne yéen ñi gëm na ngeen jaamu yàlla te bu len ko ak dara waye sen ñaari way jur yitam nak lepp lu ngeen man ci rafetal na ngeen ko def jëm ci ñoom waye gannaaw seeni way jur seeni mbokki jege ñaale yitam lu ngeen am ci lu baax na ngeen len ko defal waye ngeen ci doora tek jirim yi ak miskin yi kon da ngeen di gis ne fi ci aya bi borom bi tabaaraku taala ma ñuy digal pour ñu bépp njekk walla teraanga boo xam ne dañ koy def ñu jiital ci suñuy wayjur teg ci suñuy mbokk keneen kuñ ci teg ñu door la ko cee teg borom bi tabaaraka wa fonk gim fonk mbokk tax na ba mbokk mi nga xam ne sax nekkul ci diine islaam li la borom bi tabaaraka wa taala digal moom mooy nga jëfanteeg moom jëfiinu mbokk jëfin bu rafet moo mu ne wa in jahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa saaxibhuma fi dunya maarufan mu ne sa ñaari wayjur wala mbokkum jege ñaale moo xam ne sax ma ngi nekk ci place wayjur nee na nag bu fekkente ne daf laa bëgg a ci loo xam ne dang ci maanaam bokkaaleeg yàlla wala loo xam ne ci diine bu boobaa nee na bu leen leen topp waaye nag ñàkka topp gi ci wàllu diine waaye nag bum tee lépp loo xam ne day tax sa digganteeg moom rafet ci wàllu mbokko nee na nang leen wa saaxibuhuma fi dunya maarufan nee na bépp jéb ak njekk goo xam ne am nga ko na nga ànd ak ñoom ci loolu lépp lu la sa diine terewul bu boobaa mën nga koo jëfanteeg ñoom te teg ko ci cadre mbokkoo ndax mbokkoo borom bi tabaaraka wa taala moo ko fonk moo ko wax ci gis nga ne maanaam mbokk fooraange gim foor moo tax borom bi tabaaraka wa dangay da gis ne ba mu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñam ko njëkk a wax ñu woo daf ne ko wa anzir achirataka al aqrabina maanaam yow yonent bi risaala bii nga xam ne lettre bii nga xam ne diine jii nga xam ne moom laa la wesaare loo nang ci tàmbalee ci sa woy jege yi maanaam na nga njëkk a waar say mbokk maanaam ñi nga xam ne ñooy say baay say nijaayak say tàntak say bàjjan say rakk say mag ñooñu nga xam ne yéen a bokk ñooñu kët na nga leen waar kon moo tax sax nga gis maanaam fonk gu yàlla fonk mbokko moo tax nga jis mu wax ne ci xadiisul quds ana arrahmaanu wa hiya arrahim xalaqtu rahima mu wax ne shaqaqtu laha isman min ismi fa man wasalaha wasaltuhu wa man qataaha batattuhu borom bi wa taala mu wax man day man maay man may ki nga xamne ne borom xewal gi ci ad di xewal ñepp ci aduna ma yore yermane gu mag gi itam ma yërëm ñepp motax itam nak mbokkoo nak moy rahim nganam rahim ci turu arab moy mbokkoo mune tax mu ne dama ko dag ci samay tur ci sama tur manam dérivé mo bi ma ngi moy ar rahman manam racine bi ñoo ko yem maanaam ci la ci turam ci la jële benn noo def ko muy mbokk muy rahim nee na képp koo xam ne nag jokk na ko man borom bi tabaaraka wa danaa la jokk waaye képp koo xam ne dagg nga mbokk googu nga xam ne dama koo jël ci samay tur manitam itam la dagg imaam ahmad ak abu daawud ak tirmisi ñoom ñoo ko solo mu nga gis ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax di wax ne arrahimu muallaqatun bil arshi taqulu man wasalani wasalahu llahu wa man qataani qataahu llahu rawahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi wax ne maanaam ak mbokk ak mbokkooñ yàlla ma ngi ko aj ca suufu arash ca arash la ko nee na mbokk googu ci boppam nag mooy wax ne képp koo xam ne jekk na ma maanaam képp kuy doxuk mbokk di ko def di ko jokk di ko wax lu baax ak di ko dëgëral yal na la yàlla jokk yal na la yàlla dëgëral yal na la yàlla sàmm waaye ma ngay ñaan itam fu mu toll ne képp koo xam ne yaa ngi dagg mbokk di ñaawal mbokk di yàq ak mbokk yal na yàlla dagg sa lépp ñaawal sa lépp yàq sa lépp kon nak nga gis ne kon defar mbok lu bax la waye nak yak mbok lu bon la rawahu muslim motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mangi waxat ci benen hadith sax ne silatul qarabati masratun fil mali mahabbatun fil ahli manshaatun fil ajali yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne manam mboko day maanaam yi ñett yépp dana ko sabab nee na képp koo xam ne dangay jokk ak mbokk loolu dana la andil wërsëg wu yaatu waaye itam képp kuy jokk mbokk dana tax maanaam nit ñi gën laa sopp say mbokk gën laa sopp waaye képp kuy jokk mbokk yitam maanaam yàlla dana guddal sa fan nga gis ne kon ak mbokk kat lu jara defar la lu jara sam la lu jara toppatoo la ndax lo ci def rek day delu ci yow xam ngeen ne bu neena na bu njëkk bi mooy dana yokk sa wërsëg ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi wax ne anfiq unfiq alayka na ngay joxe ñu di la jox bu fekkente ne say mbokk nag lépp loo am bokk koog ñoom dimbale leen ci sa am am day gën di yokk rek waaye itam nag xam ngeen ne képp koo xam lu baax rek lay def ci ay mbokkam di ko ci wax di ko ci dox itam fu mu toll fu ñu tase gërëm ko cité ko en exemple maanaam di ci joxe ci moom melo exemple bu ko defee képp ku dégg exemple yooyu ak sa mbaax yooyu rek cofeelam ci yow dana yokk moo tax mu ne dana yokk cofeel ci say mbokk waaye itam nag dana tax nga gudd fan ndax xam ngeen ne képp kuy defal nit ñi lu baax da nga leen danañ la ñaanal lu baax danañ la ñaanal gudd fan te xam ngeen ne borom bi wa ngi wax ne wa amma ma yanfau naasa fa yamkusu fil ardi waaye képp koo xam ne da ngay jariñ nit ñi lépp luy amal njariñ nit ñi rek da nga yàgg ci suuf kon def lu baax li ngay def nit ñi njariñ gi nga am ci ñoom dana guddal sa fan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko kon gis ngeen ne waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam lu leer la lu leer la ndax moom leeralal nañu ne man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsaa lahu fi atharihi falyasil rahimahu mu ne képp koo xam ne bëgg na maanaam yàlla yaatalal ko wërsëgam te itam guddal fanam nay jokk ak mbokkam muttafaqun alayhi kon danga nga gis ne kon loolu kët dana tax nga gën a góorgóorlu ci sa mbokk ndax beneenub xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mag ñu ciy moytuloo koo xam ne kët maanaam day dagg mbokkam ولا موي بيو تي اي كاو مبوبم ولا بيو تي كاو نيت ني نдах يونت بي ما واخ تي حديث ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من امول بن بكار بو خامني موم لا يالا غنا غاوي تي كاغا خامني مو ديف بكار بوبا تي مبوغل كو تي ادونا booleeg lam koy dencal bu àllaaxira bew ak di dagg sag mbokk maanaam ma ngi lay xamal ne maanaam koo xam ne dangay ngay bew ci kaw nit ñi di rëy réylu koo gis dafa ne yaa ko supérieur yaa ko gën di leen suufeel ak di leen mànkeel ak di bajantu ci seen kaw kooku yàlla da koy yàkkamti maanaam toroxal ko àdduna bu àllaaxiraa nag mu mbugal ko waaye képp koo xam ne itam day dog ak mbokk maanaam yàlla dalay yàkkamti ci ba àdduna la lay tàmbalee def lim lay def te bu àllaaxiraa lam lay def moom mooy gën a metteeti kon da ngeen di gis ne aaya yii nga xam ne wax nañ ko ak xadiis yii nga xam ne yépp leeral nañ leen daf ñuy xamal ne maanaam teral say mbokk ak di leen jokk bokk na ci jaami yàlla yi gën a màgg te itam mooy li gën ci loo xam ne nit daf koy def ci gii dund maanaam ndax dund ci àdduna ku fi nekk il faut nga am relation ak nit ñi di demanteeg ñoom di fekkalanteeg ñoom kon nag jëf ji ci ëpp solo moom mooy daal nga fexe ba say mbokk ngay jëfanteeg ñoom jëf yu rafet di defanteeg ñoom jëf ju rafet moo tax na birral aqrabina turuquhu adidatun wa subuluhu kathira Mhm. gis nga sax teral saw mbokk te it moom itam ak rafetal ko xam ngeen ne façon yiñ ko mën a def bari na lool moo tax li ñu ci gën a bëgg moom mooy lépp loo xam ne maanaam soxla woon nañ ko ci yow rek nga yombalal leen ko lépp loo xam ne dañ koo soxlawoo moo xam sa doole la moo xam sa alal la moo xam sax xalaat la war nga leen koy laabiire te yombalal leen ko bu ñu amee ay aajo yitam nga di leen ko fajal loolu itam bokk na ci te itam nag wassilahum bi baadi maalika in kaanu xayra warraasi wurraasika bëgg nañ itam bu fekkente ne am ngay mbokk way jegeñaale yoo xam ne bokkuñu ci ñi nga xam ne boo fi faatoo ñoo lay doon nga def wasiya xam ngeen ne wasiya borom bi tabaraka wa taala min badi wasiyatin aw daynin toujours bu fekkente ne nit ki faatu na bala ñoo miraas alalam la ca yàlla njëkk a digle toujours day wax ne gannaaw bu ngeen exécuté maanaam wasiya dénkaan ya nga xam ne moom la dénkaane woon avant muy faatu wala boog bor yi nga xam ne bàyyi na ko bala ñoo séddale dara ci alalam il faut testament ñu liir ko la nga xam ne daf ne woon lii na ngeen ma ko defal nangam nangam bala ñoo séddale dara amuñu droit seddale te exécuté wuñ wasiya ndax nit kuy dund ku ne boo faatoo sa alal ceer bi yaa ko moom deux tiers yi nag say woy dono ñoom ñoo ko moom directement ñoo koy donn waaye un tiers bi nag lépp lu la neex man nga ko cee dénkaane nañ ma ci defal lii nañ ma ci mayal diw lu dul ne nag amuloo droit may ñi nga xam ne dañoo bokk ci way dono yi kuy doon kenn du ko may alal gannaaw bi nga génnee àdduna moo tax xam ngeen ni islaam da ngay gis ne moom diine la joo xam ne diine ju sel la diine ju set la diine ju mën a defar àdduna la parce que da seet wasiya ni ko yàlla fonke ci diine ak chariaal ko ndax dangay xool nit ku faatu ndax nit bu xasee ba faatu te bàyyi benn doom bu góor ndeyam ak baayam dong ñoom ñoo ko mën a rax ak jabaram ku dul kooku keneen mënatu cee dugg ki nga bokkal ndey ak baay moo xam sa mag la walla sa rakk la amatu ci dara ki nga xam ne moo sa baay ñoo bokk ndey ak baay tey bu la yaroon yitam amatu ci dara sa jarbat bi nga xamne ne ma ngi woon ci kër gi di la liggéeyle sax lang ko ca fayul loola amu ca dara loolu nag moo tax islaam ci boppam bañ nit ñi maanaam ñu am en ci seen diggante wala iñaanante ñi nga xam ne woy dona yi nga di leen iñaane liñ ci am moo tax islaam ci boppam wax ne nit ku nekk sa alal am nga ca ceer bi sa sœur yi nga xam ne am nañ paar ci yëf yi waaye nag duñ leen duñu donn nga ne sama jigéen bii kat joxal leen ma ko nangam sama nijaay ji kat mayal leen ma ko nangam sama bàjjen bii joxal leen ma ko nangam sama tante ji joxal leen ma ko temps xam ngeen ne loolu nag dana defar ak mbokk te dana ko rafetal borom bi tabaaraka taala nga dégg itam ma ngay wax ba ne wa ida xadara alqismata ulul qurba wal yataama wal masaakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan maarufan tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala ma ngi wax ne bu ñu demee bay miiraas bu fekkente ne say mbokki way jege ñaale dañoo ñëw fekke miiraas ma wala ay yatim maanaam ñu ñàkk wala ay miskin wala boog ñooñu nga xam ne dañoo ñëw nee na na ngeen ca coppati dara jox leen bu doon wolof sax da ngay wax seen ñamu bët boog parce que dëgg-dëgg gis ñuy compter ay million yoo xam ne sa frère ko fi ba wala sa sœur ko fi ba wala sa nijaay ko fi bàyyi loolu lépp wax dëgg yàlla ñu wàññi ko ba jeex séddoo ko ña ko moom dem bàyyi la xam ngeen ne loolu ñaaw na moo tax islam borom bi tabaraka taala wax ne nag ñooñu nga xam ne woy jege ñaale ya ñëw fekke woon miraas ma nee na na ngeen ca coppati dara jox leen bu fekkente ne borom mbir mi néewul dénkaanewul woon ci ñoom bu ndax kuy dénkaane sax mënoo dénkaane ci ñëpp bu ko defee jàll ña ko teewe yone borom bi tabaaraka taala nee na na ngeen leen ci mosal waaye na ngeen ko booleek itam wax ju rafet ah wax dëgg yàlla kat yow mënuñu laa neenal ndaxte kat ni nga meloon ak moom wax daal wax ju rafet ba ku nekk daal ngeen yëkkati ci loo xam ne da ngeen ko koy rafetale moo tax yi nga xam ne léegi sax la ko nit ñi yàq ba nit bu faatoo ñu mel ne kuy seddale ci ngénte waaye nañ ko daan def anam bu rafet la woon bu jekk la woon boo xam ne amul xuloo amul ŋaayoo amul dara waaye léegi nag yeneen lañ ci dugal yoo xam ne naan xawma lu nekk daal ñu tudde ko xam ngeen tur yiñ ko tudde ci wàllu bàjja nag ndey jaak njëkke laak yooyu yëpp li ya islam am daal mooy nañ rafetal diggante mbokk ya luñ leen ca mën a jox rek ñu jox leen ko ca moo tax defar mbokk itam du rekk maanaam ñépp a ñàkk nga mën leen a dimbali waaye xam nga mën ngaa am mbokk moo xam ne mën na boppam bu boobaa moom itam lépp loo xam ne mën nga ko ci njëkk nga defal ko ko xam nga bu fekkente ne yow sa menn mbokk dafa dëkk fii ci dakaar yow nga dëkk ca kaw ga léeg-léeg nga gis kuy ñëw nga wut ca lu mel ne ñebbe wala gerte wala yu demee noonu nga xam ne danañ ko aajowoo wala bisab nga wut ca dara ab saak yónnee ko ko ne ko boo demee na ko jël dana xam ne ah wax dëgg yàlla kii day li muy ñàkk ñàkk kat moom xam na teraanga bu ko defee loola dana defar ak mbokk te dana ko rafetal te dana tax itam ñu gën a am cofeel ci yow ndax danañ xam ne kat yow it yëg nga leen boo xamee ne itam ñi nga xam ne ñooy say mbokk maanaam yow yàlla dalaa may xam-xam boo xam ne war nga leen ci man di dimbali maanaam képp koo ci gis xam ne kat yoon wi mu jaar du yoon woo xam ne wu rafet maanaam amul mucc ëllëg wala bu ëllëgee kat mën na cee am ay jafe-jafe bu demee ci kanamu boroomam foo ko gis na nga leen laaye biir boo ñëwee seen kër loo ca man waxtaan ak ñoom yokk leen gën leena encourager encouragé teg leen ci siratul mustaqim yow mi nga xamne borom xam-xam nga bu boba yawit loola war na la mbax borom bi tabaraka wa taala ma ngi wax ne ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nas wal walxijaaratu borom bi nangi wax ne yéen ñi nga xamne gëm ngeen yàlla na ngeen moytu safara te moytul ko seen ñooñ sa ñooñ nak du rek wa kër kese waye say mbokki way jégué ñaale la yàlla waxon yonente wa anzir ashiratakal aqrabin koku ñépp la war manam sa mbokki way jégué ñaale na nga leen di war na nga leen di digal borom bi tabaaraku taala mom la waxat itam wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha la nasaluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa sa njabot say mbokk na nga leen di digal ñu julli te itam bépp coono ak lépp lu la ci fekk rek baye boo moo muñ ko ñun kat laaju ñu la wërsëg ndax ñun ñooy leen ñoo lay wërsëgal waaye ñoo leen di wërsëgal wal aaqibatu mujj gu rafet nag lit taqwa ka koy am mooy ki nga xam ne dafa rabal borom bi tabaaraka wa taala moo tax yonent yàlla Ismaayil borom bi tabaaraka wa taala ma ngi ñu koy wax ci téeréem bi di wone na kët wa kaana ya'muru ahlahu bis salaati wa zakaati وكان عند ربه مرضيا يوننت يالا اسماعيل كات موم نيكون دي ديغل اي مبوكم مانام ني جولي اك دي генي ازكا وايي كات موم نيكون كو ني گرم فا بروم بي تبارك وتعالى بوكو ديفه نك واعلموا رحمكم رحمكم الله ان الرحم كل من كان بينكم وبينه قرابه رك موني nañu xam ne mbokk daal mooy képp koo xam ne sa diggante ak moom am na benn lien de parenté bu ko defee say baay mbokk lañ say yaay mbokk lañ say doom mbokk lañ yu góor yeeg yu jigéen yi waaye ñooñu itam seeni doom sa mbokk la maanaam sa baay képp ku mu jur rekk sa mbokk la sa yaay képp ku mu jur sa mbokk la ñoom it seeni doom nag ñoom ñépp say mbokk lañ parce que seeni doom say doom lañ waaye moo tax nga gis ne ñii say freer la ñuy doon ñii nekk say sœur ñii itam nekk say doom waaye am nga say doomi ba doom maanaam baay yu ndaw ndax képp ku bokk ak sa papa tey góor rek maanaam maanaam sa papa bu ndaw la moo xam mag mooy ña mag la wala ñu ndaw ña ñépp say baay yu ndaw lañ waaye képp koo xam ne bokk naak sa papa yitam tey jigéen kooka bàjjan lay doon ci yow seeni doom yitam naka zalika say cousin la ñuy doon say nijaay mooy képp ku bokk ak sa yaay tey góor nijaay lay doon ci yow waaye képp ku bokk ak sa yaay tey jigéen yitam bu boobaa ñooña say tànt lañuy doon seeni doom ñoom itam say doom lañ say mbokk lañ moo tax kon di da nga ciy gise ne ñi ñépp dal say mbokk lañ mbokk nag dafa am lool jeexi jeexital ci maanaam yërmande ndax bu ñu waxee bokk rekk même wolof bokk moom mooy koo xam ne yéen a bokk naqar bokk bànneex rekk sa mbokk la kon nag sa mbokk mu ne yéen a war a bokk seeni bànneex waaye seeni naqar yitam yéen a ko war a bokk borom bi ko taala nag moom daf koo jële ci turam wi nga xam ne mooy ku bari yërmande maanaam jël ci moo bi kon nag mbokkoo buñ ko doon firi ci arab sax moom mooy yërmande maanaam yërëm ci suñu diggante kon nag képp koo xam ne bokkul na yàgg yow rek war naa am war naa yëg yërmande ak cofeel ak goo xam ne day jóge ci yow di jëm ci moom waaye di jóge ci yow itam jëm ci moom waaye képp koo xam ne itam da koy dog na ko wóor ne maanaam na seenu ne yàlla dana dog yërmandeem ci moom ndax moñ na ko ba jël ko ci turam wi nga xam ne mooy turu yërmande tur wu ci ne nag boo bëggee tur woowa yàlla di ci jëfanteeg yow da ngay yore jikkoy tur woowu muy arrahma maanaam nga am yërmande ci nit ñi moo tax sax borom bi tabaaraka taala ne irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama na yërëm ñi ci suuf bu ko defee ki ci kaw yërëm leen borom bi tabaaraka wa taala te itam nag képp koo xam ne yaa ngi dagg mbokk na la wóor ne loolu mën na laa andil maanaam meru borom bi tabaaraka wa moo tax da nga gis nit ñoo xam ne nag ñoom duñu jokk seen mbokk lu dul ne seen mbokk leen jokk loolu nag bu fekkente ne yow képp ku la dul seet si danga naan man ku ma seet siwul du ma la seeti booba kat yow de defaroo mbokk maanaam yow da ngay fay bor te loolu nag lu jaadu la parce que ku la seet si moom li nga ko yoreel mooy nga seeti ko waaye kay jokk mbokk mooy ki jokk ki dul seet si yow nga dem seeti ko ndax la yonent bi waxoon ca xadis ba rek sil man qataak waati man xaramak waafu am man zalamak ku la jokk ku la dagg nga jokk ko waaye képp koo xam ne daf laa xañ nga jox ko waaye ku la tooñ nga jéggal ko loolu mooy jikko ju rafet loolu itam nag mooy jokk mbokk gi tax ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa alwaasilu bil mukaafi i walakin alwaasilu alladi ida qutiat rahimuhu wasalaha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jokkukatu mbokkukat duñ ko tudde koo xam ne day wax ne lu ko mbokkal defal daal ci lu baax mu fay ko ko déedéet kooku kay duñ ko tudde jokkukatu mbokk nee na jokkukatu mbokk mooy ki nga xam ne bu ko ay mbokkam daggee yitam moom mu jokku leen buñ ko dul seeti mu di leen seeti buñ ko dul jox mu di leen jox buñ koy tooñ mu di leen baal kooku mooy jokku mbokk kon li daal ci ñun mooy lépp lu ñu man ci jokk suñu mbokk ñu di ko def ñu itam bu ko defee loolu kat képp koo xam ne da nga ko def da nga am lu baax ci ñoom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faqad jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa wa qaala ya rasulallah inna lii qarabatan asiluhum wa yaqta'uuni wa uxsinu ilayhim wa yusi'uuna ilayya wa ahlumu anhum wa yajaluuna alayya mu ne benn waay dafa ñëw ci yonent bi ne ko man dey sallallahu alayhi wa sallam man samay mbokk bu ma leen jokkee ñu di ma dagg bu ma leen defalee lu rafet ñu delloo ma ñu ñaaw man bu ma fekkente ne dama yéwan ci lawet ci ñoom ñuy taral ci man maanaam daal ñoom lu ñu man ci lu bon di ko def ci man man may yërëme ñuy soxor ci man ma di leen yéene jàmm ñu may iñaane yonent bi ne ko ah kon de bu fekkente ne loolu la dey yow day na la wóor ne yaa ngi leen di leel doom bu tàng maanaam doom bu tàng mooy lan mu ne laa yazaalu ma aka min allahi zahirun alayhim ma dumta ala dalika maanaam doo dañ mukk kat di am maanaam lu yàllay def ci yow ci ñoom li feeg yaa ngi sax ci loolu maanaam daf la bëgg a wax ne ñooñu nga xam ne kat lu bon la ñuy def ci ñoom ngay def yow ngay def ci ñoom lu baax booba yaa ngi leen di lakk te yëguñu ko parce que lu bon lu ñu def ci yow maanaam poson lay doon ci ñoom waaye yow lu baax la leen di defal lu baax lay doon ci ñoom sallallahu alayhi wa kon nag nañu ragal yàlla ci suñu mbokk te itam bépp àq boo xam ne am nañ ci ko ci ñun ñu di leen ko delloo te itam lépp loo xam ne mën nañ ko ci yiw ñu di leen ko def waaye lépp loo xam ne aw ay la indi ci ñun di ñu ko def ñu jéem ko muñ jéem ko toléré jéem ko nangu borom bi tabaraka wa taala ndax moo ñu ko wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama inna allaha kaana aleykum raqiban maanaam yàlla mag ñuy wax ne nañ ko ragal maanaam ci mbokk googu nga xam ne dañu koy danañu ko laaj bu ëllëgee te nee na yàlla kët yéen ñépp ma ngi leen di fuglu mooy ma ngi leen di surveiller de près maanaam daf leen ci surveiller bu baax a baax a baax ci seenu mbokk bu ko defee nag nañ ci ragal yàlla ragal yàlla googu nag moom mooy ngay taxaw di xool ak di seetlu ndax yow sa mbokkoo googu maanaam yaa ngi koy matal walla matalug loo ko bu ko defee képp koo xam ne képp koo xam ne maanaam gëm na borom bi tabaaraka wa taala war na jéem a xool est-ce que maanaam mbokkoo googu moom ma ngi koy saxal walla saxalu ko bu fekkente ne daal ma ngi koy taxawu mu xam ne maanaam taxawu na ko bu fekkente ne taxawu ko bu ko defee mu góor-góorlu euh, lépp loo xam ne mën na ko ca rek mu def ko ndax ku ne mën naa xam ndax moom ma ngi taxaw ci mbokkam wala taxawu ca bu fekkente ne la ngay yow ndax yaa ngi leen di jokk wala jokkoo leen wala boog ndax yow nooyal nga sa digganteeg ñoom wala nooyaloo ko wala boog li nga xam ne moo dox moo la war ci maanaam jokkoo ci maanaam lépp loo am ci lu baax nga séddoo koog ñoom bu ñu nekkee ci naqar nga dem bokk koog ñoom bu ñu nekkee ci bànneex nga ànd kook ñoom bu ñu ñëwee di la ndax yaa ngi leen di dem ziyaare ji léeg-léeg fekk dara dalu leen ngir rekk cofeel ak mbokkoo tax ak itam ndax say mbokk bu ña ca feebar yaa ngi leen di dem seeti te itam est-ce que yaa ngi nemmeeku seen xaal maanaam situation bi ñuy dund bu fekkente ne maanaam koo xam ne da nga koo war a jàppale ci sa wàllu alal moom ndax yaa ngi ko cay jàppale wala boog jàppalewoo ko ci sa alal yooyu yëpp da nga ci mën a peser sa bopp ndax yow yaa ngi di def li la war ci sa mbokk wala defuloo ko ndaxte xam nga léeg-léeg nga gis nit mbokkam ñëw maanaam mu ñëw ci kër gi ro dikk ci salon bi ñu ne ko diw dey ma ngi ci biir nga ñëw rekk mbokk moo xam ne wax dëgg yàlla gën nga koo gis lool nga yow rek ne alaykum continue dem ci sa nek teud koku kat bu boba mom dana xat lol parce que dana am kersa lu mu new new bo ñewé ñu ne la diw kat ma ngi fi wala bo bo duggé suméku wala nga def dara ba pare la nga wara ñëk def moy delu ci ci assalamu alaykum wa aleykum salaam santé ak mom laaj ko njabotam laaj ko waxtaan ak mom lu mu new new boo doon jéem a dem def leneen sax nga ñaan ko ne ko ma ñëw tuuti yooyu yëpp dana tax nit ki gëna sawar dana tax itam nit ki gën laa ñeme te dana tax itam maanaam cofeelam di gëna yokk ci yow waaye nag loolu kat am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla maanaam ak mbokkoo ñoom joxuñu ko muy benn considération maanaam danañ am koo xam ne mook baayam ñoo bokk wala papaam bu ndaw bu bokk ak papaam sax ndey ak baay wala yaayam ndey ak baay wala koo xam ne seeni ñaari papa mu nekk fii ngeen bokk benn koñ te mënoo xam këram bis bu ko problème dalee sax da ngay laajte këram loolu nag wax dëgg yàlla bokkul ci rafetal ak mbokk wala sa nijaay bu bokk ak sa yaay xamuloo fan la dëkk ci dakaar doo ko seeti jéemuloo xam numéro téléphone moom bu la soxla woon buy ñëw day wër yow ngay wër loolu nag bokkul ak li yàlla wax ne na ngeen ma ragal ci mbokkoo googu nga xam ne bu ëllëgee danaa leen ko laaj. waaw jërëjëf imam euh, dañuy bëgg a leerlu ndax nit ñi am na ci ñoo xam ne xàmmeewuñ mbokk ak kanakan mooy seen mbokk wala loolu xaw leen a desee leer. te yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ne wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa bil dhil qurba wal yatama wal jaari sil qurba wal al junubi wa sahib bil janbi ndax ñooñu man nañ leen limale ci walu mbokkoo gi ak naka lañ leen di jappé ak kan mooy mbokk deug deug dëkk jërëjëf oustaz tala Sey mom moy suñu gan fi loolu nga wax deug la jar na leral ndax yàlla ma ngi ñuy leral ne nañu manam ragal yàlla te itam jaamu ko te bañ koo bokkaaleek dara waaye suñuy jur lu ñu mën ci defar ci lu rafet ñu def ko ak sa woy jegeñaale mooy képp koo xam ne maanaam li nga war a defal sa papa war nga koo defal maanaam képp koo xam ne moom mooy sa magu papa walla sa raku papa walla maanaam sa tànta walla sa bàjjan walla seeni doom maanaam ñi bokk ak sa papa yépp ci wàllum wayjur jàppe leen papa te itam li war ci sa digganteeg sa papa moo war ci ñoom boo ko manee waaye nag manin ñu bari nag dañu defa ne jëf-jëf rek la ci alal waaye déedéet yëg ak dox ak wax ak jàppale ak di leen massawu ak bu ñu awee xew nga teew fa loolu la la yàlla sant waaye kenn waxul li nga am lépp nga jël ko jox leen ko du noonu waaye daal ñi nga xam ne itam bokk nañoo sa yaay ci moo xam ñoo bokk ndey walla ñu bokk baay wala seeni ñaar yaay bokk yaay walla ñu bokk papa wala seeni papa bokk ñooñu ñëpp say xaraaba la te danga leen a war a xam ñooñu la yàlla wax ak door caa teg nag bu ko defee say dëkkandoo yax ña nga ca gën a bokkal nga war a gën a jox seen àq que ña nga ca bokkalul waaye bu ko defee dëkkandoo yëpp ngay respecté waaye ñi nga xam ne yàlla dane la booleel ci wàllu deret ñooñ ngay bëgg a fonk xam nga nit mën na tànn ay xaritam waaye mënula tànn ay mbokkam yàlla mooy tànn mbokk loolu mbiru yàlla la kon na képp koo xam ne bokk nga ak moom waruloo am complexe wala nga koy xeeb parce que boo ko xeebee sa bopp nga xeeb waaye boo ko yëkkatee sa bopp nga yëkkati parce que nit lu mu rëy rëy maqaama boo dee njiitu réew sax teewul rek dañ naan diw mooy papam diw mooy yaayam diw mooy nijaayam diw mooy bàjjanam mënoo ci dara loo rëy rëy situation moo tax ñoo ñu dëgg leen a war a fonk dangaa war di puukarewu wane ne ñii ñooy samay mbokk mhm, oustaz jërëjëf imam kon ci loolu nga wax ni est-ce que nit ki comme yàlla moo koy tànnal mbokkam mhm. moom est-ce que waroon na mën a daw ay mbokkam di leen làqatu wala mu leen di nëbbatu comme yàlla moo ko ko tànnal bëgg ñii ndox bokk ak moom est-ce que war na mënal nëbbatu ay mbokkam wala mu leen di làqatu comme ni ko ñenn ñi defee fii sa mbokk jóge ci àll ba ñëw fekk la fii ci Dakar ngay bañ mu xam fu mu nekk wala ngay bañ est-ce nit ki war na mën a def loolu. waaw loolu mooy li ñu doon wax sànq mooy complexe la. Mhm. maanaam yow nga am situation nekk directeur général benn société walla nga fay kilifa sa nijaay ñëw jóge fële ca àll ba ngay bëgguloo bu ñëwee doo ko présenté kenn ci bureau bi ne kii kat mooy sama nijaay loolu jaaduwul rafetul wala mu ñëw ci kër gi fekk fa say xarit ak nu mu mën a mel rek war ngaa wax ne kii kat mooy sama nangam ndax yow it bu fekkoon te ne wax dëgg yàlla bàyyi woon nga xel ne kii moo sa yaay a bokk ndey ak baay wala moo sa papa ñoo bokk benn baay kon bu fekkonte ne la la war ci ñoom def nga ko en tant que directeur wala ngay kilifa bu ñu fay ñëw kët seen yére bu xottiku wala bu tilim boobu kët bu ñu ñëwee dana am beneen yéere boo xam ne mën nañ ko caa kii parce que yow yaa ngi yor ba nga xam ne am na yére yoo xam da nga toog ñetti at doo ko sol wax dëgg yàlla nga seet yépp sa mbokk ya nga xam ne ñoo ko soxla ca kër ca àll ba nga di leen ko yónnee ñoom danañ sawar ci bis bu fay ñëw da koy fóot ba mu set paase ba mu rafet mm-hmm. mu sol ko pour won la ne mm-hmm. ah man kat yére ba nga ma mayoon mm-hmm. moom laa sol ba may ñëw ci yow mu boobaa nag doo leen daw képp koo gis nag muy daw di ay mbokkam ak di làqtu ñu xam ne kii mbokkama na la wóor ne rek maanaam la ko war ci ay mbokkam da koo deful parce que bu ko defoon da ciy am fierté da ciy kontaan pour won ne kii kat mooy sama nangam ak nangam te loolu nag am na ñoo xam ne da leen di dal ba ci seen way jur ji leen jur sa yaay ñëw maanaam ñëw ci anam bu ñaaw mhm. wala sa papa mhm. nga dëkk ci ay étage yoo xam ne climatiseur mhm. gardien ci buntu kër gi bak sa papa fële ca àll ba wala sa yaay ñu nekk ca matt ma ak ci tàngoor wa ak ci naaj wu tàng wa ak ca laax ba yow nga nekk fii di lekk say ganaar loolu kët wax dëgg yàlla ku koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon ne maanaam ak mbokk dañ koo wékk ca aras mhm. bus bu ne muy wax ne yow yàlla mhm. képp koo xam ne ma may jokk mhm. yow yàlla yàlla na nga ko jokk waaye képp ku may dagg yow yàlla yàlla na nga ko dagg ñooñu kooka dana ca bokk tey waaw kon imam bu ñu déggee ci sa wax sànq ndax mën nañoo limaale jokk mbokk muy farata ndax yàlla subhaanahu wa taala wax na sànq ba nga ne ulul qurba wal yataama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax moom it ci xadis ne afsu salaama watamu taama wasilul arham wasallu bi leyli wannaasu niyaam yàlla subhaanahu wa taala digle na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeralal ñu ko ci xadis ndax kon mën nañ koo limaale ci ne loolu farata la ci doomu aadama bi mu war koo def comme ni mu war a defee ay julleeg yeneen xam nga loolu farata la xam nga yàlla daf ne waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsaanan wa bi dil qurba wal yataama wal masaakin na ngeen jaamu yàlla te bu leen ko bokkaaleeg dara seen ñaari way jur lu rafet lu ngeen man ngeen def ko ci ñoom waaye seen way jege ñaale lu ngeen man lu rafet kon nag képp kuy def lu rafet jëf yàlla lum la sant boo ko ci defee da nga cay am tiyaaba tiyaaba jooju nag maanaam danga ci am ndax yàlla dana la bindal maanaam kuy jokk mbokk yonent bi nee na yàlla day yaatal sa wërsëg day guddal sa fan day tax say mbokk gën laa bëgg kon da ci am maanaam ak jaamu yàlla la comme niñ la sante julli ngay julli ñu bindal la ko tiyaaba jokk sa mbokk di leen defal lu baax itam noonu lañ koy bindale jullit bi maanaam tiyaaba waaye itam nag bu boobaa noonu lañ koy yokkale ci wërsëgam noonu la ñuy guddale fanam kon nag ku ko bàyyi mooy nga yàlla kon itam nag dañ la ciy bindal bàkkaar boo mënee dimbali sa mbokk lànk dimbali woo ko nga war a ko taxawu nga lànk taxawu woo ko bu ñëwee nga di ko làqatu loolu da nga ko layoog borom bi tabaaraka wa taala ndax mooy li ñu waxoon saa mm-hmm. tas allazi tasaaluuna bi wal arham mm-hmm. Mm-hmm. ndax inna allaha kaana aleykum raqiban na ngeen ragal yàlla te itam ci mbokkoo gi nga xam ne bu yomal xiyaamee dana leen ko laaj te ngeen xam ne yàlla nag lu ngeen def ci seen mbokk gis na ko lu ngeen ci wax xam na ko banque lu ngeen leen defal itam yàlla yëg na ko te dana leen ko fay jërëjëf imaam euh, ñu bëgg a leer lu tuuti itam ndax waxtu wi mi ngi dem te euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu wax ne jullit àq jullit ci mbokkum jullitam daf caa tuddoon ne su la woo na ko wuy ji donc yow mi nga xam ne dangaa nekk ci situation yu baax nekk fii comme dakaar waaye yaa ngi am say mbokk yoo xam ne se ne nii ñi ngi am ay xew di la ko yëgal waaye yow daal euh, xëy na gis nga ne yow daal bëggoo dem ca béréb yooyu wala yu mel noonu wala milieu yu demee noonu ndax yaa ak ñoom bokkuñu daal nga fay bañ di teew ak yu mel noonu est-ce que loolu itam dina jaadu ci nit ki حق المسلم على المسلم خمس لا ينتبه صلى الله عليه وسلم واخ مانام رد التحيه وتشميت العاتش و آه، اعاده المريض مانام نينا اك جولي تي مبوكم جوروم لا بولا ني السلام عليكم غنكو وعليكم السلام فرص لا موتي الحمد لله غنكو يرحمك الله فرص لا mu feebar nga dem seeti ko fors la mm-hmm. mu faatule nga dem àndi ca néew ba fors la mm-hmm. juróomeel bi xaw na ma rëcc tuuti su la bu la woowee nga wuy ji ko force la mhm. loolu nag moom mooy bi nga laajte mhm. maanaam sa mbokkum jullit bu xewlee bu la ca invité mhm. te nga xam ne muy xewum jàmm moo xam ne bàkkaar doo ko fa jële da nga ciy jokku mbokk kooku nag yoon la nga dem wuy ji ko buy ngénte bu la ko yëgalee war nga faa teew bu fekkente ne suba si amuloo jot parce que liggéey bee la njat nga bàyyi ba wàcc nga jaar fa boo fa manee sànni dara nga sànni ko fa jàppalee ko ko boo ko mënul itam teew fa wala sax nga jox ko ngant te téléphoné ko won ko sa ngant boo fa mënee yónnee dara te bu dee man nga ko nga def ko boo ko mënul itam nag teew gi lañ la laaj bu ko defee nag kon da ngay gis ne sëñ kër Si nag sa radiyallahu anhu daf daan wax bàyyi leen di wax naan diw ak diw de bu ñu toow teewee rek mel na ne ñëpp teew nañ nee na da ngay fexe ba bokk ca diw ak diw mhm. ña ñuy lim naan ñoo fa teew mhm. yow fexeel ba di ci bokk mhm. waaye lu ñu wax rek nga ne ah diw de comme ma nga fa rek mel na ne maa nga fa yow bu ñëpp meloon ne yow kenn du fa teew loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax te xam ne dal mbokkoo dal yàlla alali yàlla la te itam yàlla ci boppam moo ko fonklu moo ñu wax itam nañ ko fonk nañ ci taxaw ku ko taxaw maanaam yàlla dana la fay mhm. waaye képp koo xam ne sàggane nga ko mhm. na la wóor ne mhm. sàggane nga sa bopp te mbokkoo comme ni nga ko waxee nag li war daal moom mooy lépp lu war ci sa wayjur na la wóor ne say mbokki jur war na la ci ñoom bu dee say wàllu papa noonu bu dee sa wàllu yaay noonu bu dee ñi nga xam ne itam ndax lien de parenté ku nekk xam na say mbokk waaw ku ci nekk dal nga di ca wax di ca jëf di ca dox ndax dañ ne ñett yiy dox dox mbokk hmm. maanaam dara du ci sax karaw hmm. maanaam tànk bi ngay dëgg hmm. ndëgguli moom du sax karaw sa lamiñ wi ngay waxe lu baax ba jokk mbokk moom itam euh, euh, du sax karaw waaye sa loxo bii nga xam ne ci nga am alal di ci coppati di joxe du sax karaw kon daal yii yépp daal nañu jàpp ne daal mbokkoo yàlla moo ko dagg ci ay turam jox ko pour ñuy diggante suñ diggante ñu koy rafetal di ko jokk yàlla nee na ku jokk mbokk ma jokk la waaye ku dagg mbokk ma dagg la yonent bi nee na ku jokk mbokk yàlla dana la yokkal sa wërsëg te itam da nga nekk kuñ bëgg ci sa biir i mbokk te itam yàlla dana guddal sa fan kon daal oustaz Talla ñu ngi lay gërëm di la sant ci wuy bi nga wuy si ci maanaam suñu plateau bi mhm. di ñaan borom bi ko taala mhm. yal nañu yàlla defal dégg ak topp te itam nag yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne mhm. maanaam dañuy jokk seen mbokk di ko rafetal jokk mbokk nag moom mooy nga jàpp ne sa mbokk mooy yow lépp loo leen defal sa bopp nga ko defal waaye loo leen def ci lu ñaaw sa bopp nga ko def parce mënoo wax ba du ne ah, bàyyi di wala nijaay di loolu kon mënoo ci dara mm-hmm. kon ñu ngi gërëm ñëpp mm-hmm. di sant ñëpp mm-hmm. suñu auditeurs yi nga xam ne ñoo ñuy déglu toujours ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare yu demee ne suñu waa daara ji nga xam ne ñoo nekk ci maris ak daara ja nga xam ne mooy kër Serigne moor Diop fële ca Parcelles Assainies ak suñu mbokk rimbax yële nekk ci pàkk bi ak suñu mbàkk bu baxa sow yëpp ak waa Louga yëpp ak suñu jigéen bu baax muy soxna Maymuna Ba nekk fële ca Parcelles Assainies ak su madame Sarr ñu koy tudde a Touré ak suñu jigéen soxna Aminata jaw Chimère ak mboolem suñ papa bu ndaw bële nga xam ne moo nekk fële ca yëmbal tudd Baye Mbóoj ak suñu mbokk yëpp ak suñu xarit yëpp ak suñu waa école yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar oustaz Talla Sey moo nekkoon fii ak ñun oustaz Babacar Mbóoj di leen nuyu di leen ziyaar fàttewuñu itam soxna Aida Sarr ak Ousmane Diop ba nekk fële ca kanada maanaam di nuyu itam suñu directrice soxna ñu ma ba ak suñu sëriñ maanaam Thierno Ahmad Yora di ko ziyaar di ñaan borom bi tabaaraka taala ki nga xam ne moo nekkoon ci technique mooy suñu jaarbaat euh, Makhtar Dieng Ndiaye di ko nuyu di ko ziyaar di wax ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen xarit imam abu bakr Mbodj moo doon waxtaan ak yéen fii ci 98 point 2 ci Safina FM wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.